ok alright yeah li mooy rap li mooy hip hop li mooy musique gu mbedd musique gu góor yàlla musique bu jóge ci dënn di dugg ci nopp musique bu dëggu dëggu dëggu ku dëggu koy déglu musique bu hard bu high bu level musique bu yë ok alright yeah li mooy rap li mooy hip hop ay waay la ko désiré ah subhanallah si Santu baba. Ah, way way way nuro amna di. Ah, te de la yëm ci yalla. Yok <laughs> sama ndeysaan génn ngeen ndeysaan no koy faal ku baax ah papa kon kooku ñaaw na de déedéet musul ñaaw bi musul ñaaw ah kon kooku ñaaw na papa illallah eh la kay no koy ku baax la su oh benn ngeen yow fi nga papa ah dafa nelaw gak kay yal na ko yàlla yërëm isaan fi nga dëkkee non dëkkuma fi dafa am rek ah mhm. ah nuroo ngeen de say man de moom laa la tegoon tiitoon naa trop dëgg la kay pour man daa dekkeeg yooyu noonu wax dëgg yàlla ah, la bind ma ne nga baal ma defaala ma fii sa numéro cay nuroo sama numéro ah? ah maa ngi tudd de maa koy jéggul ñoo ko bokk hmm. yéeme na de nuroo ngeen daal yal na ko yàlla yërëm amin amin amin amin ah li mooy numéro bi waaw mooy sama numéro ah noo tudd man awa laa tudd awa mhm. ah waaw waaw dina baax papa man nag gars yi waa koñ ngi naa ma nice ñu naa ñi naa ma neex ñi naa ma nanité waaye pas nanité gee gën a dox. non bàyyi ma wax papa rek. ah non ah, wuy ma nak wuy ma numéro bi nga ma jox nii. Mm. moom laa doon sàkku. te ma lay wax nii. Mm. deewul dara ko fi mu gën kanam. Amin. wuy ma dinaa la woo. incha allah dinaa la woo wuy ma taxawal taxawal ah doom wuy ma. jënd mm. crédit nga bippé ma. jënd si kër yi. dix millions nga wax wuy ma jënd si kër yi nga bippé ba. lii bëri na de ah waaw wuy ma nag jënd si kër yi xaal caaraale rek. <laughs> jërëjëf. <laughs> yaa ngi si jàmm. mais li ma la may ëpp na de. maa la raw. yaa ma raw nii. waaw docteur ko ma fekk si la nga ne yaa ma raw. li ñuy def naaj bi daa tànk. naaj bi daa tànk kon man yëguma naaj man mi dox ba raw la nii ñëw seet si la. yow kenn day yow ci man. mais naa la xamal dara xëcc nga sa teen ba mu ñëw de. li ñuy def wax ma sa secret boobu. ah xaw ma benn secret. amoo benn secret. paa bee fi ne. paa. waaw. di def loolu yokk sama tàngaay aal ma man. paa. yow jeunes yi nekk fi looy wut jeune. jeunes yi nekkee fi leen lu dox loola ba ba nga xiif wax loola ba nga mar. yaa ngi dégg nga nekk ci naaj bi nag di dem ak a ñëw ñuul ko fii laay toog. Mhm. naaj du ma lakk doxuma ba xiif waxuma ba mar. moo tax sa kee baax na. waa gis nga nii da laay def sama téléphone bii rek laa ndeysaan foo nekk amaa xiif mu yónni ma yàpp nooy népp déggal loolu yaa ngi jàll ba chez ba moom yaa nag indi yónnee ma glace ndeysaan fu toog di lekk sama foofu nga ko téye nii moo la jox tey kese maa xam nga ne nekk ci dara ah loolu nga foofu paa yi nga yi nga xam ne moo yeboo ma a la ceeb la bu jeex rek ma cat ba des ci nga nekk nii maa xam nga lool loolu nga foog waaye dóore wu ñu xaste wuñ waaw foofu loolu nga foog rek mën na xolo fu mën na mu dem xale bu ndaw laa yor dënd bu mool hmm. maa la wax li suma tege sama bopp dama damay lu bari. way man de fen fenn. mo fen xana lo ci message la bokku moom. jeexna na. la mbamu mu doon orange money. way dal pay dal daal yoruñu en tout cas. pay bay yi bàyyi ni ma toogee ni ah. ni lay toogee rat suba bu guddi nag. en tout cas wàcce nga sa garab pay yi ah, lolu nga fop jank jank yow mi ya wàccee sa garab yow mu top xale yu ndaw yi nga xam amul amuluñ la benn lolu nga yaakaar rek. amul la benn njëriñ naa la xamal dara rek ku nek xam la bax ci mom mu koy téye diko def. kon bax na man xale yi baax ci man waxuma ben pa ku ne man ci paa yi man. nga xam ne paa yi dañoo ñàkk classe sànq rek bamay ñew ci yoon bi <laughs> ma dajje pa bu ñak classe wo ma ma wuyu ko mu yaakar na la ko mu naan ma ay niro ak sama ni ca ca ca man waruma paa yi man zëngi lay wër. jank est-ce xam nga dama mujjé jaakar lo yow. fa sa fa ma lay déglu ni sama tok sa dafa soy dama lay jógee ni jank ñu xuma daf may neex na dama la dama la lenn ci paa ñu gis nga benn boo ci am jàppal mu dëgër jànk paayi dóore wuñu xaste wuñu saaga wuñu te xoolal minute benn temps bu ndaw la temps la ay minute dong la <laughs> duñ fi diire duñ def une heure de temps duñ def deux heures de temps yaa ngi dégg mm. dañuy ñëw xoolal ñoom tegal leen ko fii rek bu nekk ca poos fa bu ne lu ne nag yaay boroom jànk xool sama appartement gis naa lépp macha allah meuble lepp kaw ba suuf gis na sama appartement mm-hmm. est ce que xam nga ni sama cent franc demu ci lépp baa bi la te ngaa wuti paay paay ñoo fi toog de ah man de pare ma pour paay ndax du pour man te duma ñoom hmm. paay waruma leen man seen yi laa nekkal hmm. mais nag bu loolu weesoo jàng waaw à part mbalagante jaayante kii affaire yow jël sa paa téye ko ma jël sama jën téye ndax seen i dënn yu mool daf may daana di ma yóbbu fu sori mais nag bàyyi ma conseiller lu ndaw rek te bariwul gis nga fee nga beral sa yaay mi ñu fi ñu yes appartement ñu leen lako di lako fayé fayal. macha di nga indi ci dibu yu neex yeeg yàpp yu neex yeeg yu kenn xamut. Hmm. nga japp ne moy aduna hmm. gisoo gi ci bis na gisoo boo ko waxee xale yi jàpp ne moom la tabak sina ah kon tax na. ci xel bu baax. waaye jank ma xamal la benn bu ndaw. ñu ñëwal yow lay dem tank ci suuf jaan ci suuf. way na mu naan nak waaw man tey ni sama waji ah naka mu nak sant si jàmm ay cool cool cool naka naka naka naka garam place bi naka mooy nii rek garam place bi kay tey mooy tey sawar sawar kay sew dama leen di gisul sax booy dañoo gën xaw nañu football rek ak jëm bu ko naa ñu waxtaan nag waaw maa jaam li nga nekk ci koñ bi rafetul de yi nga di sàcc kay def doy di yooyu loolu moom saay rafetul bëgg naa ñu waxtaan ci de baal xale jigéen yi ngay jël bëgg ay waaw ah yaa ngi may aayaloo xam si ni pour génn si moom dina jafe dina dañ nag xamul tax muy dañ su ma la waxee da nga dégg ndax man a yow danoo yàgg sa sa loxo senn mën ngaa bokk man hmm. te dama di mag waaw kon su ma la aayee da nga bàyyi ah mais dégg naa la mais nag am na paa yi na ci koñ bi dàq doxan xale ci loolu nga war a njëkk a wax door a ñëw ci xale xam nga ñun tolluwaay la te nee naan boo ci tollee def ko Wes ko bàyyi ko dara ah boy boy yang ngi dépassé nag. non dépassé wu. yaa ngi rek dëgg la waxante. non non yaa ngi dépassé. ma eh. li ma toll nii boo bawa ko aayee dama koy si mën dara. dëgg si koñ bi ko def rek. si ñoo ñëw toj solo bon. non non du question toj solo da nga maa woo pour ñu waxtaan. déedéet non mais su lay wax li ngay wax ni kon yow ya, kon dama bëgg ni su ma la dégg nag kon man li ngay wax. ci ah dañ ah waaw la bu bu for da for sama xool damay juk dem parce man dama mën a bokk ak yow quoi yow xam nga lan moo sa problème da nga dama lay wax dëgg ngay mer quoi déedéet waa yow iwo hee sama boy bala bismillah waa boy nakamu ana sa ndey lan ay yamba ji subhanallah lan moo waral loolu déedéet waay ñan ngay àndal ñan wax la bul ànd ak ñooñu waay ñooñu waxoon naa ba ànd ak ñoom dañ lay jàpp ay waaye déedéet waay déedéet waay wuy ah ma waaw ah, baax na dinaa la woo damaa nekk ci mbedd nekk ci mbedd xam nga yow joob bi wax dinaa la woo woo la ilaha illallah la subhanallah ay waay waay waay la ilaha illallah nang nan naan ñuumanoo sant mu ni wele ki kañ la mel nii